bikum maître Moussa Diop yoon woolu na ko ba pare fañ koo tee def ko garda wi allah libération moo ñu ko xamal ginnaaw xibaar yi mu fi génnee nga xam ne fa garaaw ba jéggi dayoo jëm ci ab contrat sulli jamaa bu dox ci diggante njiitëram Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran yor yor yéen kaay na ko moo taxit bi xibaar bi jibee ci la wàllug yoon takkar naa sa ci kawam l'évidence yéen kaay na a ah xibaar yi mu joxe xanaa xam mën naa taal am réew bés xeer yaa ngi bàyyee ko fu ne jëm ci kawam Mimi Touré mel ni kuraan leen loolu jaru ko commission enquête parlementaire ci assemblée loolu la war a def rek mu jeex Guy Marius Sagna feelu ko moom itamit ci bés bi yéen a kaay ne faay sàkku ci assemblée nationale député yi ñu amal commission boo xam ne fa ñu enquête xam ni nga fi tëddee lan moo ci dëgg léeg sa ko a kaay nee na waaye yéen xam nga seen xalaat ngeen wax waaye procureur moom fa def li ñuy wax autosaisir ko ba pare déglu ko lépp ngir leer ndax fa war a leer moo tax jamono jii ma nga garda wii fañ ko téye jaaña maître li mu wax dara du ci dëgg vox populi ne groupe Mimran fa ñu wax na ñoom it fa ñuy porter plainte maître Moussa topp ko ci wàllu yoon Aly Ngouille Ndiaye na leen yéen fa ngeen koy waaj man def naa ko ba noppi de faa ko porter plainte moom maître ndax li ma tuumaal xamut ma ngi ko waxee ci bés ba yéene kaay keneen ku wax mooy jëwriñ ji dénk wàllu miin yaaw fa wax ne xamut benn permis sulli ay jamaa buñ joxe fii Sénégal le quotidien yéene kaay ne hee maître Moussa mii jamaa xam yi fu bëri ñu ko weddi wala fa jër yéene kaay na ko tuuma sulli ay mbóot yu garaaw moom la def presse yéen a kaay dafa mel ni nag maître Moussa moom kenn kot moo nekk ci yëf yi contre gars yi maanaam fañ koo sot soto réew mi yéen a kaay na yëf yi kay fi fa gën a garaaw fa gën a takkarnaas coolee nga mel ni kur de ci dëkk bi ndax contrat jamaa bu ñuy tudd njiitiram Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye Mimran loolu fa garaaw critique yéen a ko moo tax de mënta ñàkk a jamaa jamaam yi faaw mu leeral te mooy yéen a mel ni ko naa man da faay ragal jamaa yi kalaate ba yóbbu waa ji kaso vox populi na jëwriñ ji ñu dénk daal wàlluk minimum weddi na contrat su lim jamaa ci Sénégal libération na ña ngi ko teg loxo fañ koy laaj li mu wax fan la ko teg tribune yéen kaay na ko li mu wax fay ragal dana ci am problème bu mag yaaw seetal léegi moom su génnee ay kayit yoo xam ne ay firnde la comme ni mu ko waxee woon ci contrat beeg nañ ko tëggee kayit yëpp mu joxe ko su boobaa yoon mën na koo topp ci li ñuy wax yoon li jël document administratif boo xam ne amoo ci sañ-sañ wala boog ñu toppee ko joxe xibaar yu wérut moo tax daal député yi moom ña ngay sàkku ñu amal enquête parlementaire waaye askanu Sénégal ñu ngi sàkku dëgg gi leer ñu xam contrat boobu ñuy wax naka la demee <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy na tey ci talaata ji ci la ëtt attekaay bu ndakaaru di hàttee ci coowal Ousmane Sonko ak état bu Sénégal fañ koy dugalaat ci liste électorale yi mu mën a bokk ci wote yi laaj réew mi wala duñ ko ci dugalaat ba tax te mooy yéen a kaay na tey la bésu dëgg bi ngir Ousmane Sonko vox populi na xay farandooram nag moom Ousmane Sonko fa ñoo joxante rendez-vous tey ca tribunal bu ndakaaru mobilisation bu rëy ngir jàppale seen leader mu bokk ci wote yi te te jeeju ne ñun fa ñoo gëm ne fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bii yoon rek la ñuy atte ca tribunal ba te rek Sonko fay bokk ci wote yi ndax dara mënu koo xañ te nañ ko génnee ci liste jaarut yoon su boobaa nag mu mën a dem jël fiche parrainage bi waa Lakos ña ngay woo patriote yi ci ak vigilance libération na audience bi kay faay ragal na mooy sànni tàcc Ousmane Sonko de ay farandoram ne fañ fay dem nag mobilisation El Malick Ndiaye ne faa leen di xamal leen 2024 Sonko mooy jël réew mi kon dem leen ngeen jëli seen carte ngir wote yéen kaay bi tey mu daw Ndakaaru indépendant yéen kaay ne ëllëgu Ousmane Sonko tey lay leer fay bokk wala du leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy jaar-jaaru Déthié Fall njàngam liggéeyam xarañam parti fi mu jaar ci politique ba fi mu yegg si tey moom la ñu info yéene kaay xëy di ñu xamal ne ca pàndaw ga jaar-jaar bu rafet bu ko may tey jii moom Déthié mu nekk candidat ngir laaj réew laaj réew mi 2024 Bougane Gueye Dany turbine yéene kaay nee na Bougane Gueye Dany fa mbuqi waa Benno Bokk Yaakaar ca Géejawaay def na <laughs> lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Amadou Ba Abdou Diouf bi nekkoon président bu senegal Sénégal fa ko dalal ca France bés bi yéen a kaay ne Abdou Diouf kay fa parrainé Amadou Ba 24 heures yéen a kaay na ko voilà gis nga Habib Sy nag fa ñaawlu dem googu Amadou Ba dem France ak doxalinu réewum France fa koo ñaawlu watey léegi mu ñëw ngay jël candidat di ko dalal xanaa loolu mooy ne mooy sa candidat moom nga faral l'observateur fa dalal jëwriñ ji ñu dénk kopparu réew mi Moustapha Ba fa toj rajaxe ba mokk lépp lu jëm ci wàllu boru Sénégal beeg la wasaare ba mu leer nañ laneen ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne tey ci la ñuy amal ay wote centrale syndicale yi ci Sénégal ana ban doole gën a bëri mbooloo vox ne huit wote yi tàmbali ba dix huit junne ak téeméeri bureau de vote fukk ak ñaari central syndical ñooy xëccoo ña war a wote toll nañ ci ñeenti millions yu manqué tuuti ñetti téeméeri millions nag moom lañ dugal ci organisation wote yi war a am tey li am démb nag mooy ne waa kaaf yi ñuy ŋànk footballu réewu Afrique fa tànn Victor Osimhen mu nekk ballon d'or Afrique footballkat bi gën a wuutu Sadio Mané